وكان waaw kay asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp xaax te di leen baal xaax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñoo fi indiwaat tey ay jàngat jàngat yi nag jëm ci eh, li nga xam ne moom lañ gis fan yi ci média yi ñu koy wane muy li nga xam ne moo xewoon ci armeelu Pikine yooyu te it nekkul lu bees ak mbir bi nga xam ne moo amoon foofu ñuy wax ci King palaas Palace dafa ne nit ñi doon ci wax li nga xam ne moom lañuy njëkkee nag mooy li nga xam ne moo amoon ci armeelu pikin yi muy gàllaaj yooyu nga xam ne dañ koy sulli ci armeelu jàmbur yi wala boog ci xabru jàmbur yi mu doon nag mbir moo xam ne wax dëgg yàlla mbir mu doy waar la ci képp koo xam ne nit nga te nite nekk tamit mbir mu raglu ci koo xam ne it nit la te doon tamit mbir moo xam ne mbir mu tiis la ci koo xam ne dafa gëm yàlla doon it loo xam ne lu lay jaaxal la ci réew moo xam ne dañuy wax ne daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi gëm nañu yàlla mooy dañuy wax ne dëkk boo xam ne quatre vingt dix pour cent de croyants ñoo fa nekk wala boo quatre vingt dix pour cent yu teg soo boolee ñi nga xam ne ay chrétien lañ ak ñi nga xam ne ay jullit lañ mu nekk it mbir moo xam ne ki nga xam ne maanaam koo xam ne xam nga ni réew mi ñu nekk di doxee mbir la moo xam ne yow du la bett ndax mbir la moo xam ne du lu nëbbu ndax mbir la moo xam ne lu fës la waaye nag mbir la it mu doy waar ci ku xam mbir la mu doy waar ci ku xam mais mbiru gàllaaj yooyu nga xam ne maanaam dañ koy def ci armeel yi ndax dañuy wax gàllaaj bi ñuy def ci armeel waaye gàllaaj yi fi ñu koy def bari na képp koo xam ne di ngay gis vidéo yi nga xam ne euh, waa daara kennal yàlla dinañ koy def nga gis ñuy dem ci yenn bare bi di dem ci àll yi di gis ci yenn garabu guy yi ay ay ay xeetu liggéey ak ay daaj yu fay daaj ay kànnaar yu ñu fay def ak maam liñ fay nga xam ne xeet yooyu yëpp ni nga xam ne noonu lañ koy defee ci réew mi mu bari lool ay barab ak gox goxat yo xamne so fa deme mu nek ay barab yo xamne day xawa a dekk way nit ñi difa def xeet yu mel nonu yoy so miinee di gis di nga xamne li du gulet te tey du nek lula bet te sax dadul gulet sax li am ci armeelu Pikine du gulet ndax ay mbir la yo xamne duma wax yag na ci rew mi waye sax na ci rew mi. duma wax sax sax na fi waaye da nga naan maxe na ci réew mi dafay maxe waaw te mu nekk lu mat a xelaat nag ndax soo xoolee li tubaab di wax maanaam paradoxe mooy ak woroo moom la bu jéggi dayo boo xam ne nit ñi jamono bu ne dañ ciy teg seen bët waaye nanguwuñ koo bàyyi xel nanguwuñ koo maa nanguwuñ cee xelu nanguwuñ cee yewu ndax lu ci ëpp dañ naan ah li aada la fii lañ ko fekk nangam nangam maam ku gëmul xarfa fuufa ñu fuuf la ku bëreewul ñu bëre daanu sa kaw maam fexe maam fexe ba créer ay xeetu wax yoo xam ne dañ koy faral di wax mag ñi di ko wax ndaw ñi ndaw ñi dem ba gëm loolu ñu jàpp ne loolu lu wér la maanaam ku gëmul xarfa fuufa ñu fuuf la maanaam ku barewul ñu bëree daanu sa kaw maa gëmloo ko nit ñi ba nit ñi dem ba gëm loolu dem ba jàpp ne seen àdduna pour mu jag faaw ñu dem ci xeetu maamën yi ñu leen di wax li aju ci seen suba ñoom di leen wax seen ëllëg mooy di leen wax lu aju seen loo xam ne loo xam ne kumpa la loo xam ne yàlla rek moo ko jago di leen wax ne nangam wala nangam wala nangam ci loo xam ne yàlla rek ko ko jagoo ñu di ko gëm di ca jaare ci loolu nag naan leen nag nangam gii soo ci bëggee mucc wala nangam gii soo ko bëggee faaw nga def nangam ak nangam ak nangam loolu nag nekk loo xam ne lu fi yàgg la du fi gan mënees naa wax ne mbir la yoo xam ne maanaam daanaka foo dem ci àdduna bi loolu mu ngi fa. ma ci mu njëkk ba nag am na dëkk yoo xam ne daanaka yooyu melatu fa noonu soo demee ci dëkk tubaab bi ba soo demee Occident yu ci bari melatu daanaka soo xoolee sa nekkatu fa daanaka mais mbir yoo xam ne nit sooy gis histoire da ngay xam ne dem ci ay nit moo xam euh, li maanaam li ñuy wax li ñuy wax sorcier wala ay chaman wala nangam daanaka ci àdduna bi soo gëstoo da ngay gis ne loolu ci histoire da gis ne daanaka barab daanaka barab yëpp ci àdduna bi xeet yooyu dafa amoon. mais lan moo tax ba ñu dem ba yenn dëkk yi loolu ñu génnee ko ci seeni gëm-gëm génnee ko ci seen culture ba tax sax nit su fa demee tey day mel ni dëkk yooyu mosuñoo xam loola li ko waral mooy maanaam am réew wala boog aw askan ci boppam dafa war di évoluer te bokk na ci li tax muy évoluer ay xeetu révolution yoo xam ne dinañ am révolution yi nekkul rek sur le plan politique mais ay révolution dem ay li ñuy wax li ñuy wax révolution spirituelle day am maam ci wàllu ci wàllu ngëm-ngëm diggante nit keeg boromam révolution dana ci am ba tax nit ñi ñu commencé di gisee di xelaatee noo xam ne nu wuuteeg na nga xam ne noonu lañ daan gisee ak noonu lañ daan xelaatee révolution mentale aussi dana am ndax spirituelle ndax révolution spirituelle soo amee révolution mentale day am directement leneen ni nag day nekk comme day nekk une révolution politique loolu moom leneen la am ay volonté politique yoo xam ne fi nit ñi nekkoon bëgg nañ leen fa génnee ba tax ñu ñëw di leen wan dëgg-dëgg li nga xam ne moo nekk ci àdduna bi li nga xam ne mooy la réalité li nga xam ne mooy logique ba nit ñi dem ba mën a génn ci gëm affaire sorcellerie affaire mysticisme affaire mystification ndax nii nga xam ne ñun ñii nii lañ ci mel mooy soo ñëwee ci Afrique wala ci yenn dëkk yi lu mel ni ay Haïti euh, wala comme soo xoolee daanaka ñi nga xam ne seen cosaan daanaka Afrique la daanaka réew yooyu presque foo ca dem da ngay fekk ne loolu ñoom dañ koy sonn même soo xoolee ñi nga xam ne dañuy wax ne seeni maam dañ ne jàppoon jaam yóbbu woon leen lu mel ni Amérique par exemple lu mel ni Brésil wala lu mel ni Haïti wala yenn dëkk yi da ngay fekk ne ba léegi ñoom même fa ñu nekk sax dañuy yor yenn xeetu gëm-gëm yooyu. mooy di pratiquer lu mel ne ay vaudou wala yenn comme ni ñuy wax ay xeetu comme ni ñuy wax sorcellerie wala nangam wala nangam te it ña nga xam ne ñoo gën a gëm loolu soo demee ci ñoom da fekk ñu bokk ca nit ñi gën a sonn bokk ca nit ñi gën a ñàkk mu nekk lu doy waar nekk te même su ngeen gisoo ci histoire foofu ci Europe comme li ñuy wax Moyen soo fa demoon presque tamit loolu moo fa nekkoon. ay nit ñoo xam dañoo gëmoon ay sorcellerie ñu dem ba benn jamono suñ ne diw sax sorcière la dañ lay jàpp lakk la comme li wax sur le bûcher dañ lay lakk complètement ndax gëm gi ñu gëmoon yooyu gëm ay bët bu aay ak nangam nangam xeet yooyu soo ko waxee rek fii ñu ne ah waa loolu amul loolu ñu ngi wax ne yonent bi soo demee sax ci jàkk bën bën ya ñuy def ca kanam ci min barba nangam nangam yonent bi ala ko yónni woon te yàlla mu ko yónni woon waxut loola loolu maam naari seeni aada ak seeni gëm-gëm dañ ko jël biñ ñuy indil lañ ñu indil di idéologie boobu di njàngalem ahlu sunna wal jamaa dañu caa boole seeni aada ak seeni gëm-gëm ak ay gëm-gëmu juif yaag gëm-gëmu nasaraan yi jiitu jël lépp boole taxañ tuddeeku diine ñu ñu jàppee ko islaam ñu indil ñu ko fekk na ñu nit boobu amoon nañ xeetu gëm-gëm yooyu gëm lu mel ni ay tuur gëm lu mel ni ay xeetu xàmb wala ay xeetu xoy wala nangam te yii yëpp soo demee ci alquran rawatina sax lu mel ni ay xeetu xoy ak xeet yooyu nga xam ne nit ñi dañ koy def fii ba tey nga xam ne yàlla soo demee ci alquran ni muy tuddee sàngara di tuddee xeetu carte comme ñu wax carte xaalis yi noonu lay tuddee xoy nga xam ne ñoom da na boole ci benn ensemble ne lii kat lu bon la ci jëfu seytaane la bokk lu bon la ci jëfu seytaane la bokk nga xam ne ku dem ci surat cinq euh, mi suratu maida ay quatre-vingt-dix da nga fekk suñ borom ci boppam di waxal loolu boppam mais da gis ne ñun suñ dëkk yi dafa bari ay mbir yoo xam ne mu ngi fi nit ñi topp ci di ci dox mu nekk loo xam ne su fekkoon ne sax doon nañ gëstu maam ci histoire xool yenn dëkk yi fu ñu jaar Europe gii rek su ngeen gëstu woon fa ñu jaar ci domaine yooyu ak fa ñu jaar ci wàllu gëm-gëm comme ci wàllu diine euh, comme li ñuy wax lu mel ni lu mel ni inquisition nga xam ne amoon na ci ci presque soo xoolee ay côté quinzième siècle affaire yooyu ak li ko jiitu sax ak nga xool tamit nañu amee woon yenn gëm-gëm yi comme li mel ni église bi doon def ay kayit ne ku ko jënd mooy sa passeport ci àjjana nga ñëw fii ci dëkk bi gis ay nit tamit ñoo xam ne dañuy toog ñu leen di tuddee ay kilifa diine ñuy dikk ay nit àjjana nangam nangam gis ay nit ñoo xam ne ñoom it dañuy toog nit ñi di dem ci ñoom ñu ne dañ leen di wax lu ñëwagul ne dañ leen di wutal ay talisman mooy comme gàllaaj yi rek di <laughs> wutal ay talisman nangam da ngay gis ne daanaka foo dem xeet boobu nga fay gis ci histoire li nga xam ne nag mooy lu mooy lu triste mooy maanaam nit sooy gis histoire nga xool lu mel ni Europe fa ñu jaar ba yegg si fii tey ci développement ak ci organisation ni ñu koy wax organisation sociétale wala xeet boobu nga ñëw fii Afrique rawatina ñu suñu dëkk yi nga xool ko dangay gis ne ñun ci wàllu gëm-gëm mooy wàllu croyance wàllu gëm-gëm ñun ñoo ngi au quinzième siècle maanaam Europe rawee nañu manam 6 siècle ah fi ndax jamono bi ñun so xolé ñun danaka calendrier hégirien bi comme li wax calendrier hégirien mais calendrier sunnite bobu manam calendrier bobu nonu mu nekké au 15e siècle en réalité so ñëwé ñun suñ dëkk yi ak ci yenn dëkk yi parce que so démé côté Maroc bi non lañ gëmé yoyu tamit affaireu affaireu comme affaireu affaireu sorcellerie affaire yoyu mais ñun suñ dëkk yi niñ ci mel lool dafa jéggi da rawatu na suñ dëkk bi te mu nekk loo xam ne maanaam lu contradictoire la ndax dëkk yi dañ ciy ñëw ñu ne la ñoom dañoo gëm yàlla di la wax ne sax ñoom dañoo topp ay nitu yàlla donte nitu bant amul nit bu sim defar amul nit bu sima du sayal defar amul nit ñëpp ay nitu yàlla lañ yàllaa leen bind yooyu ay xeetu nax la yu yu gaay yoo xam ne dañ koy naxee nit ñi eh, di leen dit ay mbiru àjjana mu leer leen na àjjana munuñ ca tous loolu mu nekk lu leer ni nga xamee ne noonu ngay gisee ci Coupe d'Afrique bi par exemple maanaam ay nit ñuy génn di wax na ay maaman la ñu naan match bi ñii lay demee nii lay demee su match bi jeexee la ñu waxoon du demee noonu ñu ne dañ leen vaar noonu ñu koy gisee waxoon naa fi ay jamono li tax ñu leen di mën a vaar dañuy wax loo xam ne lu jegale luñ mën a vérifier may leen même seen sëriñ si su fekk maanaam lan moo tax ba ñoom duñ digee duñ dig nit ñi luñ mën a duut baaraam dañ leen di dig lu ñëwagut àjjana te àjjana faaw nit ki day dee doog faa xam ne nit faaw day dee ñu doog a lijjanti kuy jëm àjjana ak kuy jëm safara te bis boobu nga xam ne fa la ñuy dajee sax ba ba nga xam ne ci la ñuy nga xam yàlla si lay décider kiy dem àjjana ak kiy dem safara ginna bi mu réglé jëf yi bis booba ku yàlla dafa amut tus ku yàlla amu fa tus yàlla dana yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yow ma izin lillah bis boobu kenn amu fa dara ku dul yàlla bis boobu nag ci la ñuy nit ñi dara te loolu même su ngeen demee ci Europe bu njëkk ba da ngeen a gis ne ñoom église bi tamit la même chose dañ ko doon def ñii tamit la même chose la def gëm-gëm yi ñu amoon ci ay affaire sorcellerie wala nangam soo ñëwee fii tamit da ngay gis nit ñi gëm-gëm yooyu la ñu am ça veut dire que fii ñun da ngay gis ne bi rawee nañu ay lan

moo tax seen dëkk yi mën a mel nii mu mel ay nit di bàyyikoo fii mu jaral leen ñuy dugg ci ay gaal mu jaral leen ñuy fay ay millions ngir dem ci dëkk yooya ngir mën a am dara ngir dem ci dëkk yooya ngir mën a am nekkin wu baax te teewut kat ñi nekk fii nee nañ ñoom li ñu yor moo gën ñoom li gën ñoo ko yor li nekk fii nekkut fenn te ku ci bopp bu metti sonal sax nga génn réew mi faju ji te fii la nekk di dig nit ñi ay àjjana ak nangam ñeneen ñi fii la nekk naan dañuy faj lii wak dañuy faj lii wak dañuy faj laa te suñ feebaree am problème ku leen faj ñoom seen bopp di wax ne dañoo xam kumpa ay nit ñuy wax na gëm nañ yàlla gëm loola te yàlla wax ci alxuraan ne قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشهرون أيان يبعثون يالا وخ يونتي بي موم سي بوبام نا وخال ني امول كو نيك سي اسمان ييك سوف سي كو خام كومبا كودوت يالا اي نيت نيك في دي وخ نا خام نين كومبا نيت ني دي ديم سي نيوم دي لين سيتلو ني ني داج ني وخ لو نيوغول دي لين وخ لي ني فاغو الك يالا وخ سي بير القران سي سوره لقمان تي مجوغا wa ma tadri nafsun takk taksibu gadan nee na benn bakkan xamul la muy fàggu ëllëg ay nit ñoom mën naa wax ne yow di nga lii ñii wala di nga am lii wala di nga am laa waa lay xew suba nii lay demee wala naa lay demee ay nit di ko gëm ba pare di wax na gëm nañ yàlla ndax yàggul dara ci jamono bi bi ñuy wax ci maam maamën yi am na benn vidéo buñ ci génnee bu tudd les scientifiques du Sénégal lu tax ñu tuddee ko les scientifiques du Sénégal mooy fi àdduna toll fi développement toll fu technologie toll fu science toll nga xam ne boromi xam-xam yooyu lañu waroon a jiital ñoom la ñu waroon di médiatiser ñuy bàyyiloo xel nit ñi yenn yi di leen yee ci yenn yi di wax di wax li nga xam ne mooy mën a jëmale kanam réew mi defuñ loola ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw di wax lu leen neex. ñooñ lañuy ñuy jël di leen invité ñuy wax lu leen soob ñoom it te soo xamee comme soo amee yoo xam soo ci jaaree maanaam yow da ngay xam ne ñii toog fii di wax sax xamuñ dara ci li ñuy wax ñi ñuy médiati soo xoole sax ñi ñuy médiatiser fii ci réew bi ñuy wax ci affaire ay affaire comme affaire affaire ni ñu koy waxee affaire maaman yooyu ay faj nii nangam nangam yow soo xamee sax li aju ci loolu soo leen gisee reetaan da lay jàpp. da xam ne ñii xamuñ dara dara dara dara yàgg naa ko man mii yàgg naa ko wax ay nit na leen eh, soo xoolee jamono bi nit ñi maanaam soo xoolee réew mi ci boppam nit ñi dañoo nekk ci danger danger bi ñu nekk mooy eh, am na des fois gars yi di wax li ñuy wax xaw ma trafiquant de personnalité mais dafa bëri ay ay usurpateur wala ay charlatan wala nang moo xam baat bi ñu ko mën a tuddee parce que damay nu wax na leen yéen. même sax ci cadre ba mën yii su fekkee ne yow xam nga may ay mbiru lasraar nga xam ne nit ñi suñ daan def dara dañ daan sukkandiku ci ay kayfiyaat yoo xam ne dañ koy jële ci ay mag wala ñu koy donnoo ci seeni baay wala di ko donnoo ci seeni maam nga xam ne soo ñëwee loolu lañ ngay defal su ñuy bindal loolu lañ ngay bindal su dee gàllaaj loolu lañ ngay defal wala nàngam nit ñi bu njëkk ba ci yooyu lañ daan sukkandiku mais may leen ñu bees ñi soo leen xamee ñoom seen bopp ñooy créer seeni kayfiya bopp ñoom ñooy créer seeni mbiru bopp naan la saraxel lii wala boog man li ma lay defal ñii lay demee te yooyu ñoom ñoo koy xelaat di ko wax moo tax ngeen gis même ci domaine boobu sax lu muy bon bon bon bon bon bon bon noonu la bëree ay dérive te dérive yi ñii ñoo koy gis ko xam ne jàngu daara xamul daara gis na ne domaine bi Sénégalais yi lii leen gëm lii moo leen intéressé lii dafay maye xaalis ñoom it ñu commencé sol seeni xaftaan di def leen neex ñii di ñëw naan dañoo ami jinne dañoo nii dañoo nii dañoo naa te yooyu yëpp nekk ay problème yoo xam ne ku xam li xew da ngay xam ne ñii xamuñ sax li xew waxuma sax ci cadre islam di njàngalem yàlla mais ci cadre asraar rek soo déggee ñoom ni ñuy waxee da ngay xam ne yow yow soo xamee la nga xam ne moom la nit ñi gëmoon la mag ña daan jokkalante ak seeni njaboot bu njëkk ba ci domaine yooyu dara boolewu ko nit ñi li nga xam ne moom la ñuy wax dara boolewu ko xam ne ñii dañuy làmbatu di wax dañuy xelaat di wax te mag ñi tamit ñoom liñ doon dund mooy syncrétisme boobu mooy dañuy wax ne dañuy dund islam mais dañuy jabbase ay mbir yu bari parce que loolu lañ leen indil réellement loolu lañ gëmoon loolu lañ daan dund loolu lañ nga xam ne loolu lañ transmettre ñoom seen i njaboot nga xam ne comme damay wax ne ñu suñ dëkk yi ay victime lañ parce que liñ leen indiloon d'abord loolu moo wérul loolu moo bokkut ak njàngalem yàlla ndax su fekkoon ne njàngalem yàlla lañ ñu indiloon bu njëkk ba munuñoo gëm mukk ay mbiru gàllaaj yi munuñoo gëm mukk ay mbiru seetkat moo xam lu nit kii di seetee naan di wax naan ab kaamil lay yor ak xottu gerte lay seetee ndox lay seetee dërëm lay seetee day ramli moo xam lu ci mën a doon de su fekkoon ne dañ leen indiloon islam gu wér péng ko doon loolu sax ñoom duñ ca nekk démb tey doog a ñëw su fekkoon ne islam gu set wicc lañ leen indil kon mbiru lasraar yi du fi ne ba léegi nii du fi ne dafi dul nekk ndax loolu ku xam dëgg-dëgg islaam da nga xam ne loolu bokkul ci islaam lu ñu dugal ci islaam la loolu nag moom la ñu transmettre moom la ñu transmettre nit ñi gëm loolu loolu jaral leen lu ne ñu nekk ci dem di ko wuti ña nga xam ne ñoo ko xamoon démb nga xam ne ñu ci bari suñ ko daan def xooluñu woon ay nit ku leen maam nga xam ñoom wutuñ sa woon sa alal daawuñ ca am alal léegi nag nit ñi toll ci jamonoy alal jamonoy wanewu nit ñi di wax lu leen soob di créer ay xeet yu bees tàq di maam di ko wax nit ñi ngir di leen wuta ndax ay naan ay sarax la ñuy wax ak dama lay xamal sa sarax dama lay xamal sa rawaan ak dama lay xamal sa nii te yow mi ko xam ba di ko xamle su fekkoon na la nga xam mën na laa maan day maye dara yow soxla woo di kenn ci sa bopp soxla woo di woo kenn di ko laaj alal li nga xam kay defal ko sa bopp nga am alal léegi nag koo bëgg a dimbale ngir mu am alal moom su boobaa nga defal ko ko mais mbir yoo xam ne teguwul fenn lépp ci mbiru gëm-gëm lay nekk nga xam ne damay wax ne loolu wax nañ si bu yàgg sax ci vidéo yi maam nit ku ne li nga gëm loolu mooy li lay jàpp parce que dëgg-dëgg yenn yi c'est psychologique mbir yooyu ci xel la nekk nit ki soo ko xasee gëm rek yow am nga problème boobu te li ñuy wax ni lu ñu xam la ndax man mii sama bopp damay faral di wax loolu man sama bopp damay wax ne ci ci loolu laa juddu famille yoo xam ne ay mbiru lasraar rek nangam ak nangam xeet yooyu ay gëm ay mbiru cat ay nangam ay nangam yu baree bari yoo xam ne da koy gëm man danaa faral des fois nit ñi dinañ ñëw di ak man may wax ak ñoom ci loolu dama leen wax loolu dama naan leen man mii am na ay jamono yoo xam ne daaw ma naan ndox kese nga xam ne am na loo xam ne da nga ko daan bind alxamis bu jot di ko def ci ndox yi ngay naan pour ne loolu dalay musal ci cat wala nangam bokkut ak gàllaa yi ngay gàlloo muy su tàngoor bi jotee nga amee tàngoor mu lay sonal di taasal say yére. maam nga gëm ne loolu moo lay aar mu mel ni yàlla moom dafa mu mel ni yàlla daf fi nekkul moom mu mel ni yàlla daf fi nekkul te soo demee ci alquran di di xam suñ borom li nga xam ne moom la wax ci ku gëm li war a doon pas-pasam li war a doon gëm-gëmam li war a doon doxalinam yow di nga xam ne ku gëm mënul perte temps am ci yii nii ci nit koo xam ne day woote woo loo xam ne yàllaa ko jagoo naan mën naa lii mën naa lii damay def lii damay def lii su fekkee ne da ngay faj ci ay ci ay gàncax mais waxal da ngay faj ci ay gàncax loolu jarul di di di xulli bët ak ñàngal ak nàngam soo demee Chine nit ñi dañuy faj ci ay gàncax depuis des génération et des générations wala sax depuis des millénaires dañuy faj ci ay gàncax ba léegi nii dañuy faj ci ay gàncax am nañ seen faju bopp mais day nekk loo xam ne da am ay résultats. waaye est-ce que ñëw toog naan damay ñaan damay lii damay naan te yooyu yëpp daanaka ay nax la rek teguwul fenn ay nax la teguwul fenn ay nax la day wax da ngay ñaan mais nit ku mu mën a doon ku ne yàlla la gën a jege sa buumu xol yàlla moo wax yonent bi ne ko wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai iza daani yàlla moo wax yonent bi ne ko samay jaam su ñu lay laaj ci man wax leen leen man ku jege la man dinaa wuyu wooteeb ku ma woo su dee ne woo na ma waaye léegi yéen bi ngeen fexe woo yàlla na kenn ku ci ne su amee lu mu bëgg wala lu soxla ne moom na woo yàlla ca loola waaye yàlla lu ca teg fal yastajibu lii wal yuminu biya wuyul yàlla ca lam la woo yàlla dala nga xam maam da nga na nga wuyu yàlla te gëm ko yow gëmal yàlla te wuyu ko su fekkee ne ku gëm nga yàlla dalaa wax ne bul dee duna da ngaa nekk ku jébbal yàlla sa lépp yow fexeel di xool naka ngay def ba mën a jébbal yàlla sa lépp su fekkee ne gëm nga yàlla fexeel ba wakiilu ci yàlla wa alallahi fa lay tawakkalil muminuun yàlla mu ne ñi gëm ci yàlla la ñuy wakiilu ba yow mii wax ne da ngaa gëm li nga xamne ne suñ borom ci la lay wo yow fexel ba wuyu ko sa soko ci wuyo nak nga xol legi suñ borom mom naka lay doxee yow mais nit ñi duñu xam te it duñ leen wax parce que problème bi mooy Sénégal dafa nek dëkk bu doy war bo xamne ay mbiru intérêt ak mbiru ñàkk xam dafa bari ay problème yu mu fi jur parce que des fois so xolé ñi nga xam ne ñoom ñooy waaraate ci tele yi ak ci rajo yi nga xam ne sax ñoom ñoo waroon di yee nit ñi ci lenn li da gis ne ñoom seen bopp dañuy yëngu ci yooyu naan ay dañuy ñaan dañuy fajak dañuy listixaar ak dañuy nàngam ñoom seen bopp dañuy yëngu ci yooyu xam nga nit nag la nga xam ne da cay yëngu moom ci boppam loolu du ko mën a dénoncer suy wax day am nu mu waxee wala mu am yu muy bonal di baaxal moom ba mu nekk alors que yëpp a su dee ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ne ñoom lañ gëm ñoom lañ yaakaar ñoom lañ nàngam te loolu umpale rek ko jur umpale islaam umpale yàlla seen borom li nga xam ne moom la jàngaleel boppam ci islaam moo waral ñuy wax naa ne ay diw lañ yaakaar ak diw lañ nàngam ñooñu it ñoom seen bopp sax ñoo leen gën a gëm loolu ñoo leen gën a gëm mbiru njabar yi fuuf ay gëm ay gàllaaj am ay sëriñ di tudd waaye di seetlu di wuti gàllaaj di sangatu <laughs> ñoom ñoo leen gën a gëm loolu ba loolu loolu dinaa koy faral di wax nit ñi bëri waana ñi ñuy tuddee sëriñ fii di koo ci gis maanaam mu mu sol grand bu nga gis ko jàpp ne ko punkal la ñu ci bari ñu tuuti la ñuy doon la ñuy takk moo tax sax ñuy toll yenn melokaani moo tax ngay gis sax ñuy toll nen jegewuñ sax toll noonu ay gàllaaj sax moo tax ñuy mel nen ni lu ci bari sax yére yu mag ya ñuy sol mi grand mbubb yéeg yooyu gàllaaja tax ñuy sol loolu ngir bañ mu marqué ci yére yi wala nangam ndax su seeree day marqué léegi nag ñi ngeen xam ne yéen ñoom ngeen jàpp ne ñoom ñoo leen waroon a bàyyiloo xel lii ñoo leen waroon a yee ci lii su fekkee ne ñoom seen bopp dañuy dox ci loolu fekkee ne ñoom seen bopp dañuy dund ci loolu suñ ko mënul sax su dee ci yenn sëriñ si ñi nit ñuy topp naan ñoom lañ yaakaar suñ mënul yooyu sax dañuy wut koo xam ne loolu lay liggéey wut fuñ ko fat di ko ko defloo nga xam ne moom ku ko sant dara sax kooku la koy sant li may wax nag lu ma xam la nag wax dëgg yàlla loolu moom euh, loolu moom ku ma xam di nga xam ne lii moom du gan ci man dama koo xam ndax daanaka mbir yooyu mën naa wax na ci laa judd ci laa yaru xam naa li ci xew waaw ah, loolu moom wax dëgg yàlla moom nekkul mbir yoo xam ne dama ciy nekk di wax nii wala di wax naa ay mbir yu ma xam la du ay mbir yoo xam ne dama koy làmbatu lu ma xam la waaw ah, ñi ci nekk te xam li xew te jege xam nañ ni lii may wax mooy li am te it lu bees lu fi yàgg la lu fi yàgg la daanaka ay mbir la yoo xam ne fii la ne léegi nag ñooñu dañuy wax ne dañoo gëm yàlla te yàlla moom soo ko gëmee lim la sant. mooy nga wakiilu ci moom nee ñu gëm la ñuy wakiilu ci yàlla wakiilu ci yàlla mooy nga wóolu yàlla jox ko confiance bàyyi koog sa bopp lii tax nag loolu mën a nekk nga fexe ba sa borom lim la wax nga xam ko lum la tere nga ma sa borom lim lay digal nga xam ko lum la tere nga xam ko su ko defee di nga mën lam lay digal di nga mën a lam lay tere ndax damay wax ne ku gëm nit su la waxee ne la nangam gii ëllëg nangam nàngam nga gëm ko weddi nga yàlla kumpa yàllaa ko xam ku wax ne xam na kumpa weddi na yàlla képp ku gëm ne am na mbindeefum yàlla mu xam kumpa yow sa bopp weddi nga yàlla. yenn saa yi nit ñi dañ naan la ah mais pourtant kat da gis koo xam ne day def nangam nga gis ko wala nangam may ne loolu mooy jay li ñuy wax istidraaj mooy loolu. xam nga dañuy faral di wax ne ñaan gu nangu comme nit ki ñaan digg am lum ñaan boromam mu nangul ko dañuy wax ne dafa am lu muy niróol loolu wax nañ ci vidéo yi depuis 2017 li ñuy niróol mooy jay mooy nit ki dangay nekk ci yenn yi maanaam di ci yëngu mu mel ni da gis ay résultats ñu naan ak a mën a ñaan yow nga gis naa ah, man de wax dëgg yàlla lii saa yu ma ko defee suñ borom defal ma ci lii te fekk ne xamoo suñ borom dalay jay yow sa bopp. ndax dafa am lu mu xas wax su ne nangam gi moom képp ko jago bu ci sonn bàyyee ko sa bopp wakkilu ca moom bàyyee ko sa bopp ndax moom li muy wax ci ay aayaam la koy wax aay mu ngi ci téere bi la ma cay la mu cay wax wax na ko ba pare nit su ñëwee jéggi loolu di def leneen di ca gis ay résultat na xam ne boromam da koy jay nit liko boromam wax suko jegge di def lenen di ci gis résultat tay tuddo ko gëm su dee borom xel wala su dul borom xel nagn ko xamal ne ko xamal na sa borom dalay jey ndax yàlla dafa am lu wax ci alquran dane walladina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gaa yi nga xamne dañuy weddi ci suñuy aya dalañu len jey ba nopi dikke len fuñu xamul ba pare ñëwee leen fu ñu yàlla da lay jay ba pare nag jaar la foo xam ne yow doo ko xam mais comme yow yaa ngi dox ci loolu yaa ngi ci amee dara say soxlaa ngi ciy faju yaa ngi ciy mën a dépensu nit ñaa ngi lay xam nit ñaa ngi ñëw ci yow wala nangam yaa ngi ci am mbooloo wala yaa ngi ci am nangam da ngay dem ba jàpp ne loolu mooy mbir mi te fekk ne foofu du mbir mi te li may wax it nag wax dëgg yàlla dama koo xam mbir la yoo xam dama ciy dund ndimbalul yàlla képp mooy tax nit mën caa génn ndimbalul yàlla moo tax man mii ma yeewu ca ba bakku ndimbalul yàlla ndax man mii daan naa def loolu ay ñaan man mii daan naa ko def man mii daan naa ko def man mii daan naa bind ay gàllaaj di ko takk daan bind ay gàllaaj di ko jox nit daan bind ay saafara di ko sangoo daan bind ay saafara di ko jox ay nit ñu koy sangoo man mii loolu jaar naa ci. te ndimbalul yalla motax ma genn ci bima demé bamou leer amul katan kudut yalla gis ay aya ci alquran mu nek lu leer nañ yalla di jox ay garanti yu leer nañ yalla di la wax la nga xam mo la war sa diggante ak mom moy nga gëm ko te wakilu ca mom bama ma lolu mu leer ma nañ ma gëm ne nit ki mu leer ci man ne suñ borom garanti yi mu la joxal bopam ci alquran te dinañ ci ñëw garanti yooyu soo ko gëmee mu leer la amoo looy ragal ci sa kaw suuf nga xam ne amul looy ragal yow ci kaw suuf amul te ginnaaw gi it noonu laa ko daan waxee ku mën dara defal ku mën dara ci sa bopp nga koy njëkk a def ku yàlla mënoo ku yàlla amoo ku yàlla xamoo yàlla moo mën moo xam moo am yàlla moo mën moo xam moo am lii kenn fekk ko ci kàttan tamit yàlla képp ko am damay faral di wax ne nit ki soo gëmee ne nit ñi mën nañ ci yow dara nit ñi dañuy mën ci yow dara ndax lañu ñu mënee ci yow dara pouvoir boobu yow yaa leen ko jox mooy gëm gi nga gëm ne li yàlla jagoo ñoom am na luñ ca am su boobaa dañ koy am ca yow waaye soo gëmee ne ku yàlla munut ku yàlla amul kàttan kudut yàlla mënut ci yow lenn kudut yàlla amut ci yow kàttan ci lenn waaye loolu nag gëm yàlla gëm waxu yàlla mooy tax nit mën a am pas-pas boobu ñàkk gëm yàlla mooy tax nit di gëm moo tax nit di gëm yooyu te réew mi fii soo fi ñëwee dañuy wax ne quatre-vingt-quinze pour cent ay musulman lañ nga xam ne daanaka quatre-vingt-dix-neuf pour cent dañuy wax ne ay way gëm lañ te ñoom kat ñoom ñooy dem ci ay bàmmeel muy way gëm yooyu ñooy dem ci ay bàmmeel di ko gas di fa dugal ay gàllaaj ñooy dem ci àll yi ci ay garabu guy di fa daaj ay gàllaaj ñoom ñooy dem di seetlu ji ñoom ñooy dem ñoom ñooy dem ñoom ñooy dem ñoom ñooy dem ndax même lii nii xew soo xoolee sax yaa ngi gis kenn ku ci ne di indigné wu ah lii de moom ëpp na lii de moom doy na waar te mën na nekk sax ne ca mbooloo ya koy wax sax te teewoon fa am na ca ñoo xam ne sax la fa ñoom am na ca ñoo xam ne ñoom bokk nañ ca ña nga xam ne dañ fay suul dara waaye teewul dañuy taxaw di indigné wu mooy li ma na wax fii ay jamono en 2017 ci vidéo euh, ci vidéo 16 mane ne Sénégal li gën a doy waar mooy. yàqu-yàqu bi wala yàqute gi soo koy wax ñëpp dañuy taxaw di jàmbat yàqute gi may leen waa ñëpp suñuy jàmbat yàqute gi kon yàqute gi moom ñan la ñan ñoo koy def ñan la ah moom koy doy na ah moom koy doy na waar waa léegi kon ñan la su dee ñëpp a koy jàmbat ñan la ñan ñoo koy def su fekkoon ni nit ñi gëmuñ maaman yi kon est-ce que di ngeen gis jamono bu ne télé yi di leen teg di leen jàllale wala soo demee ci internet bi nga gis leen ñu fees fa dell su fekkoon na lañuy jaay du jar su fekkoon na la jaay jarut ndax jàpp ngeen ne loolu mën na fee yaatu loolu mënu fi yaatu li tax mu mën fee yaatu nit ñi ñoo ko gëm te nit ñi gëm giñ ko gëm ñàkk gëm yàlla lay tegtale te koo fi wax ne ko gëmoo yàlla mu àttana xuloo àttana xeex te fekk ne loolu mooy li gëmuñ yàlla moo tax ñu gëm loolu ku gëm yàlla mënoo gëm yii mënul nekk ku mu mën a doon nag soo gëmee yàlla munoo gëm yii mënul nekk ku xam njàngaleem yàlla xam ne li yàlla jàngaleel boppam yii mënoo koo gëm te fii ñi nga xam ne sax ñoom ngeen di wax ne ñoo leen war a waar ci yàlla ñu ci bari dañuy yëngu ci loola. ñu ci bari dañoo gëm lu wax sax ñu ci bari daanaka soo xo daanaka ñëpp ñu ci mucc ñu néew lay doon ñu ci mucc ñu néew lay doon. ñi nga xam ne da ngeen wax na ñoom ngeen yaakaar àdduna euh, ni koy waxee àdduna ak alaaxira te loolu moom wérut ñàkk xam tax nit di ko wax ñàkk xam a tax nit di ko def ñu ëpp ca ñoom dañoo gëm loolu te dañuy dox ci lool te li may wax nii nag lu ma xam la wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne ñoom seen bopp ñoo koy def nit ñi dañuy dem di leen ñaan ñaanloo ñu bindee affaire di joxe nangam di ay càngat ak nangam nangam loolu yàgg na soo waxee ñu naan diw alxuraan lay def alxuraan loolu taxu koo jóg. alxuraan la ko tax a jug yàlla moo ko wax dana kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun ku dem surat 29 aya kii ñu tudd surat 38 aya 29 kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yaddabbaru ayaatihi wa li yatazakkara ulul albaab yàlla li mu wax yonent bi mooy da ab téere la bu ñu barkeel wàcceeku mu jëm ci yow ngir ñu settantal ay aayaam ak ngir borom xel yi xelaat téere bi li ko tax a jug mooy xamal nit ki naka la war ci kaw suuf téere bi ñëwul pour ñu koy bind di takk wala pour ñu koy bind di naan wala pour ñu koy bind di sangoo loolu taxut a jug téere bi bind ko ñiy bind ay aaya alxuraan di takk wala di bind di naan wala di bind di sangoo taxut a jug téere bi képp ku naan la man alxuraan laay liggéey moo tax man li may def bokkut ak ña nga xam ne dañuy def affaire lu kii ay fétiche ak ay nangam ak nangam ñoo bokk yem parce que la muy def noonu loolu alxuraan loolu tax koo jug ci mën a doon nag kum ci mën doon. te kenn ku gëm yàlla mënta gëm loolu mënta ne ku xam lii ngëm xam li yàlla jàngaleel boppam te yàlla wax nit ki yow sa bopp ku dem ci suurat 17 aya 36 muy suratu isra yàlla wax ne wala taqfu maa laysa laka bihi hilmun inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'ula mu wax nit ki ne ko yow bul topp loo amul xam-xam ndax akuk dégg akuk gis akuk xel lii yëpp dañ koy laaj yàlla dafa wax na yow mi gëm yow ku mën a doon wala yow nit ki yow sa bopp yow bul topp loo amul xam-xam balaa ngaa yëngu ci dara demal gëstu lii sa borom lan la ca wax su dee ci yenn mbir yi demal nga gëstu lii lan moo ci aju balaa nga caa dugg lu mu mën a doon fexeel ba gëstu ko ba pare doog caa dugg même su dee ci mbiru àdduna yi demal nga gëstu ca ña nga xam ne ñoom ñoo ko xam nga doog caa dox. su dee ci diine laajal lii suñ borom lan la ca wax ñu jox la référence nga dem vérifier sa bopp gisal sa bopp xam na yàlla sa borom lii la wax ci nàngam su dee xam ne su dee da koo tere yow nga terewu ko su ko terewul mën nga caa dox waaye mbir yii mbiru ay njabar gii lii ku ko gëm ku ne gëmoo yàlla te loolu moom sikki saaka amu ci ndax ku gëm yàlla yàlla wax wa alallahi fale tawakkalil muminuun dana ñi gëm ñooñu ñoom yàlla la ñuy bàyyee seen bopp ñooñu dañuy wéeru ci yàlla maa ñi gëm dañuy wakkiilu ci yàlla moom mi nga xam ne moom kenn képp nag moo mën moo xam moo am moom kenn képp moo am kàttan wax laa xuwata illa billah nit ñi nag des fois dafa am benn affaire boo xam ne mooy li may wax ci jay gi lu ci bëri dañ dul xam daan naa ko missaal ci am na ci benn vidéo 2017 maa ngi ko ciy wax ci misaal nit ki dangay wax ne maanaam nit de ñëw ne la damaa bëggoon nga liggéeyal ma diw ndax mën nga ko nga ne waaw mën naa ko kay léegi nga ne waaye da may jox nangam loolu nangam laa koy defee nit kooku ñëw jox la nangam fekk amoon nga benn kayfiya boo xam ne xëy na day dox ci loolu comme noonu comme noonu ñu koy waxee ci affaire lasaraan ni ko ni ñu di waxee nga dem jëfandikoo loola yàlla dogal ci waxtu woowu nit kooku mu dof walla mu ñàkk ab liggéeyam wala nàngam su ko defee su loolu amee ka ñëwoon ci yow gëm ne lama def te jaale ko woon ko ci sëriñ bee moo réussir sëriñ bi moom it mu gëm ne la mu def moom moo réussir te ma leen maanaam umpule yàlla ak uppale njàngalem yàlla loo tax mu bon nit kum mën a doon amul lenn lu lay dal ci benn jamono lu dul ne coobare yàlla la ci sa jëmm ji may leen fi mu toll nii nit soo defoon dara na da koy rey ci seen xeetu xam-xam yooyu xam sax du seen affaire maanaam xeetu affaire yooyu seen tàllus yooyu ngeen def ko. yàlla dogal nit kooku dee ci jamono boobu nga gëm na yow yaa ko rey ay leen bàyyi leen xel loolu wax naa ci vidéo yi depuis 2017 may la yow da nga ciy ñaaw waaye defoo ca dara nit kooku waxtu deewam moo jot yàlla dafa wax ci alquran ne wa ma kaana li nafsin an tamuuta illa bi iznillah mu ne kitaaban mu ajjala mu ngi nekk ci surat 3 aya 145 yàlla mu ne warut ci benn bakkan muy dee lu dul ci ndigalul yàlla mu dogal bu ñu àppal la léegi ne imagine nit ki dogal maam nit ki àppub deewam jot nit ñëw ci waxtu woowu jox la xaay sa mude bëggoon nga liggéey diw mi mu dee nga def ko diw moomu dee yow nga jàpp ne yow yaa ko rey ka ñëwoon ci yow wax la moom mu jàpp ne moom it def moo ko rey te fekk ne yéen xamu kooku àppub deewam moo jot su boobaa lu ngeen def du da ngeen cay ñaaw ndax su ngeen defutoon dara kii lu mën a xew day dee su ngeen defutoon dara day dee su ngeen defee dara day dee ndax àppub deewam moo jot su ko defee nag yéen loolu nekk ci seen conscience ngeen jàpp ne yéen li ngeen def loolu la te fekk ne da ngeen caa ñaaw képp waaye du ngeen ca dara leneen lu mën a doon it noonu la su dee ci wàllu wërsëg nit ki mu dem ci diw diw jox ko dara mu sangoo ko fan yooyu ay mbiram ubbeeku mu jàpp ne la mu sangoo moo ubbi moo ubbi wërsëgam te fekk ne ak ubbeeku suñ borom da koo dogal ci moom ci waxtu wii la waroon a ñëw même lu jiitu sax suñ borom loolu la dogaloon ca moom su sangu wutoon dara loolu da koy am. Rabel wax na yooyu ay caaxaan la yéen su ngeen gisee xam nga suñ borom sax day wax loolu ci alquran ci euh, maanaam dafa am benn dafa am kii kii nu ma koy waxee waaye. maam yàlla dafa am lu muy jàngalee loolu ci alquran yoo xam ne maanaam yàlla day wax ne loolu sax am na nu koy waa kay suñ borom day wax ne waka ayin min ayatin loolu mu ngi nekk ci surat 12 aya 105 waka ayin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruuna alayha wa hum anha mu'ridun ana ñaata maam kéemaan ñoo nekk ci asamaan yeeg suuf si yoo xam ne dangeen koy romb ba pare di ko dummóoyu da ngeen koy romb di ko dummóoyu te dangeen ko dul bàyyi xel ndax léegi yow soo gëmee ne man nàngam gi ma def moo tax ma am nàngam nga gis fi àdduna bi toll soo demee Occident gis nit ñoo xam ne li ñu gëm mooy jàng am seen xam-xam am seeni diplôme créer seen business mu nekk business boo xam ne maanaam lu performant lay nekk nit ñi xam ko seen seen amuk alal jaar foofu ñu jaaree fa am alal te alal dañuy am soo ko nattalee ak alal ji ngay am yow dafa mel ni yow weccet nga am yow fii nga xam ne par exemple da ngay gis benn nit par exemple bu créer benn application comme par exemple lu benn WhatsApp nga xam ne soo xoolee ka ko créer suñ la waxee fa mu jaar ndax ma jaar na ci ay barab nanguwuñ koo jël wala mu baar ci mu jaar ci ay jarab mu jaar ci ay barab ñu daax ko mu dem ba créer ab application bi mu créer application bi application bi commencé am doole ñu jënd ko ci moom mu jaayee ko ay milliards de dollars de dollars parce que ñoom ñu wax ne maam presque vingt milliards de dollars dañuy wax la ko waa ji jaayee sa yaakaar naa moom la ko jaayee moom la ko jaayee kii kii ci waa Facebook mu li ñuy wax Meta léegi. comme nous avons dit, 20 milliards de dollars te it nag soo ak tamit lañ cee wax mais loolu moom xam naa pour gëstukat yi la maanaam la ñuy wax ne xëy na arrangement la pour nangam mais loolu moom leneen la mais 20 milliards de dollars moom la ñuy wax ne moom la ko jaayee vingt milliards de dollars yooyu soo ko nattalee ñii dem fii naan damaa dem ci sëriñ bi mu ñaanal ma ma am lii ma am la ay weccet la ci yow loolu soo xoolee loolu weccet la par rapport ak kee la muy am. parce que nag àdduna faaw nit ñi xam ne xel moo koy doxal adduna du ay pexe moo koy doxal su ngeen gisee suñ dëkk yi lu tax ñu des ginnaaw lay doxal àdduna te yàlla jox ñu ko muy ñetti jumtuwaay yi nga xam ne yàlla moo koy waxal boppam ak gis ak dégg ak xel ñetti jumu ne ñetti jumtuwaay yi la yàlla jox soo ko jëfandikoo rek suñ borom mën na laa dimbalee maanaam lu ne mën nga ko cee xam parce que ci loolu ngay jàngee yàlla ñetti jumtuwaay yooyu la la jox soo demee ci suuratu naxli li mu wax ne wallahu ci ci ci suurat 16 ay 78 wallahu axrajakum min butuuni ummahatikum la taalamuuna shay'an wa jaala lakum as-samaa wal absaara wal afidata laallakum tashkuruun yàlla moo leen génnee ci seeni biiru yaay te fekk boobu xamu leen dara mu leen ak dégg defal leen ak gis defal leen intellect li ñu am xel mu ne amaana kon di ngeen delloo njukkal kon yàlla lim ñu jox ngir ñu mën a xam mooy ñetti jumtuwaay yi te dañu fay indi fii ci suuf ngir ñu nekk ay xalifaam li nekk ci suuf si mu bindal ñu ko ñun nit ñi ñu war koo jëriñoo kon suñ ñëwee fii jàppee ay xam-xam loo xam ne yow dangay bind di gas di di suul da bind di sangoo da ngay bind di naan nga jàpp ne loolu mooy tabax àdduna loolu kër yi ngeen dëkk sax tabaxu ko xam-xam yi gaa yi yor nii li ñuy yor ci affaire nasaraar jàppee ko xam-xam ab néegu ñax sax loolu tabaxu ab néegu ñax laa néegu ñax sax loolu mënu koo tabax te li tax ñi léegi nit ñi mën a dëkk ci ay étage te étage yi du daanu ci seen kaw lan la loolu xam-xam la loolu moom soo ne xam-xam la ñu ne xam-xam la ndax loolu dafa wóor loolu loolu da koy mën a làmb daj ko danga koy làmb daj ko architecte bi ñëw tabax bi nga xam moo ñëw dessiner le kër dessiner ab gratte boo xam ne presque ay cinquante étage wala lu ko ëpp lay am lépp taxaw nit ñi di ci dëkk di dem ak ñëw te du daanu seen kaw loolu moom xam-xam la waaye bind ci benn këyit xosi xosi maanaam ne am damal nga sangoo damal nga naan damal nga takk loolu lum tabax ci àdduna bi tabaxut dara ci àdduna bi moo tax ba suñ dëkk yi mel nii ñu mel. jàpp na ñun ñoo fi ëpp xam-xam nangam te loolu du xam-xam te lu koy findeel mu ngi nii bokk ci li ñuy wax les vingt cinq pays les plus pauvres du monde gëm na yéen nit ñi ngeen gëm dañoo am ay baatin dañoo am lii dañoo am laa te jafe-jafe yéen ñi leen gëm ñuy wax ne ay diw laa yaakaar àdduna ak alaaxira jafe-jafe yi ngeen nekk ñooñu mënuñ leen caa génne ñoom seen bopp sax jafe-jafe yi nekkoon ba ñuy dund sax mënuñ ca woon a génnee seen bopp kon loolu du ay jafe-jafe. mais yooyu yëpp nag jumtuwaay yi leen yàlla jox muy ak gis ak dégg ak xel da ngeen gis gi dangeen ngeen ciy gumba te yàlla summun bukkumun umyun fahum laa yarji'uun da ngeen a gumba gis gi du ngeen nangoo gis loo xam ne arrangé wu leen da ngeen a gumba dégg gi du ngeen nangoo dégg lu leen arrangé wut da ngeen cee tëx xel mi moom moom du ngeen nangu xalaat mukk ci loo xam ne arrangé wu leen parce que xalaat ngeen ne sax lii lii su ma ko xalaatee tem ma alku parce que yooyu la ngeen gëmloo yem ni ah de loolu tem nga alku tem nga nii tem nga naa te alku weesuwul gëm li la yàlla gëmloowul jàpp ne yaa ngi ci yoon bi alku weesuwul loolu nar saa dund nag ba dee alku weesuwul loolu waaye gumba gi ngeen bëgg a gumba ci liy weddi li ngeen gëm tëx gi ngeen di bëgg tëx ci li nga xam ne day weddi li ngeen gëm mooy waral sax ngeen naan ah diw day diingat wala nangam fay wax nee naa diingat amul jàngat war a am nit su ñëwee wax la ci mbir mi nga nekk loo xam ne yow soo xoolee gis ko soo xel soo dégloo dégg soo xelaatee mu leer ci yow loolu moom ay jàngat la war a jur ci yow nga xool fi àdduna bi tool nga xool dëkk yi nit ñi di xataraayu di fa dem nga xam ne feebar yenn feebar yi képp soo ko defee. ñi ngeen di wax ne ñoom ngeen yaakaar suñ feebaree yenn feebar yi ñu ngi lijjanti nuñ demee ci dëkk yooyu faju ji te dëkk yooyu gëm ngeen ne a leen gën gëm ngeen ne yéen li ngeen nekk moo ko gën ndax loolu jarul ngeen koy xalaat ndax yàlla loolu mu wax ne ana ñaata kéemaan moom ngeen ni romb yàlla wax waka ayin wax waka ayin min min ayatin fi samawati wal ardi yamurruuna alayha wa hum anha muridun ana ñaata kéemaan ngeen ni romb ci asamaan yi ak ci suuf si ba noppi di ko du ñaata kéemaan léegi loolu mu ngi nekk ci surat 12 aya 105 mi suratu Yuusuf yàlla lan la ca teg ci aya 106 ba surat 12 aya 106 mooy wa maa yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun lu ëpp ci ñoom du ñu gëm lu dul ne dañuy bokkaale yàlla dangeen di wax ne gëm ngeen nii te fekk ne ci bokkaale yàlla ngeen di dund moo tax bokkaale yàlla soo xoolee fii ci réew bi comme ñi nga xam ne sax ñoom ñoo leen ci waroon ma ñoom ngeen jàpp ne ñoo leen ci waroon yee dañ cay dund ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom ñoo war a waar dañ cay dund moo tax ba gaa yi bëgguñ koo laal li ñuy bañ ku ko laal mooy ñoom seen bopp ña ngeen di wax ne ñoom ngeen yaakaar ñoom li ñuy bañ mooy ñoom ku leen bokkaale ak keneen waaye bañuñ ngeen bokkaale yàlla ak keneen wala ngeen bokkaale yàlla ak ñoom ñoom bañuñ loolu ñoom bañuñ loolu waaye bokkaale yàlla ak keneen duñ leen sa wax li ñuy bañ kay mooy ñoom ngeen bokkaale leen ak keneen ba ci bokkaale leen ak yàlla sax ñoom bañuñ ko bokkaale leen ñoom ak yàlla ñoom bañuñ ko ndax li ko waral dañ cay dund ñoom seen bopp dañ cay dund moo tax loolu moo waral loolu te yi nekk ay mbir yoo xam ne maanaam nit ku ne dace cee war a bàyyi xel te bokkaale nekk lu garaaw loo xam ne soo xoolee ñi ngeen topp da ngeen wax da ngeen leen topp ngir àdduna ak alaxira nga xam ne ëllëg ñoo leen war a xettil ngeen dugg àjjana te yàlla wax ne kuy koy maam kii bokkaale yàlla ku ne yàlla bu ne araamal na ci yow àjjana nga xam ne du tax ngeen di toppaate pour lan la pour dem àjjana ndax ñoom ngeen yaakaar aduna ak ñoom ngeen doyloo doyloo bi du seen alal doyloo wuleen leen ci seen ñu tudd ci seen alal doyloo leen ci seeni soxna li ngeen leen doyloo mooy seen diggante seen borom te mu leer leen ne seen diggante seen borom ñoom munuñ ca dara ñoom seen bopp seen ñoom seen diggante ak seen boroom ñoom munuñ ca dara bay mën yéen seen diggante ak seen borom te bis penc boobu ñu leen di dikk àjjana amuñ fa dara tanewuñ leen fa ngeen nekk nag ci bokkaale di yaakaar àjjana ay nit ñu leen fa yóbbu te yàlla wax ne moom ci boppam ku bokkaale yàlla araamal na ci yow àjjana man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna ba pare lu ca teg wa mawaahu naaru wa ma lizalimina min ansar nga xam ne kii bokkaale yàlla moom lu leer naññ lu amul sikki sàkk soo ci deewee amul sikki sàkk safara nga jëm yàllaa ko wax li nga xam naan déer kii dem àjjana kii dem safara loolu moom kenn xamu ko ah kay yàlla wax ko ñi leen di wax na kenn xamu ko yëpp dañ leen a bëgg a jëriñoo nax kii dem àjjana kii dem safara yàlla wax na ko ku bokkaale yàlla moom si kisaaka ku mu mën a doon xeetu bokkaale gu mu mën a doon yàlla nee na kuy bokkaale yàlla yàlla dafa araamal ci moom àjjana araam loolu ku dem ci surat 5 ay 72 yaa ko fay fekk mii suratu maida ay 72 surat 5 verset 72 ku ko vérifié ci biir verset ba ca suuf yàlla moo ko wax man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi l janna wa mawaahu naaru wa ma li zalimina min ansar ku bokkaale yàlla ku ne yàlla araamal na ci yow àjjana te sa naanuwaay ëllëg mooy safara te yàlla mu ne tooñkat yi ñoom du ñu am benn ndimbal kon dëgg-dëgg macha allah mbir moomu noonu la demee ndax bokale yàlla mooy du ko djegalé moko wax ci alquran ay yoon inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha so demé ci sourate 4 mais sourate an nisa ay 116 di ko fek yàlla mu ne moom du djegalé bakar ki ñu tudd yàlla mu ne moom du djegalé bokale yàlla nee mom du djegalé bokale yalla ko wax te nee ki bokale yàlla ku ne koku safara manam moy nanu wayam ndax kooku mu ne moom dafa araamal ci moom àjjana léegi ne yii di xew ci réew mi ñu di ko gis lii xew nii Pikine te du gan noonu la amee feneen ak feneen ak feneen ak feneen noonu lañ koy defee ci maanaam noonu lañ koy defee ci guy yi ci àll bi noonu lañ koy defee ci leneen ci tuur yaag ci xoy yaag ci nangam yaag ci nangam ya noonu lañ ko cee defee waa daara kennal yàlla suñu mbokk yooyu jamono bu dee di ngeen gis ñoom ñuy wane lu mel noonu di wane image yooyu nit ñi di ko gis di dem ci àll bi di dindi ay xeetu xàmb yooyu di dindi gàllaaj yi nga xam ne dañ koy jam ci maanaam ci guy yi ak daaj yi ñu fay def ak yooyu yëpp loolu jamono bu ne ngeen gis ko jamono bu ne ngeen gis ko kon ay mbir la yoo xam ne lu leer la lu ku ne mën a gisal boppam lu ku ne mën a xamal boppam mu nekk loo xam ne kenn ku ci ne da koo xam te léegi soo ñëwee suñ dëkk bi yaa ngi gis soo soo xam ay jamal ko doon wax naan Sénégal suñ xeebee li ñuy jaamu su yàlla xeebee li ñuy jaamu yàlla fii kay xanaa su yàlla xeebee liñ koy bokkaale xanaa feneen bokkaale wu ko fii moom daanaka mooy central bi bokkaale moom fii fii moom wax wax yoo da ngay wax ay fii nit ñi ay wax yu ñuy wax sax yow loolu maanaam firawna soo demee xanaa li wax ana rabbukumul aala loolu la waxoon man maay seen borom bu kawe bi <laughs> fii da nga fiy dégg nit kii wax ne man sama sëriñ moo bind yàlla de waaw looloo gën a garaaw firawna dafa waxoon ne ana rabbukumul aala maay seen borom bu kawe bi te fii da gis nit ñoo xam ne dañ naan diw mooy suñ borom ñun ñenn ñi dem ba wax na sax maanaam diw moo bind suñu borom loolu firawna dafa yegg seytaane mii nit ñi ragal fii tey dox ci lim bëgg seytaane mi nga xam ne nit ñi dañ koo ragal tey dox ca lam bëgg seytaane mooma lii nit ñi di wax fii da ko wax inni aqaafu llaah la wax moom ku ragal yàlla la waxuma ragal na xasiya waaye ragal loram lu tax mu ragal ko da koo xam nit ki loo xamul doo ko ragal de yàlla day wax ci day wax ci alquran ne ka masali shaytaan mu ci suuratu hashri surat 59 neuf ka masali shaytaan iz xaala lil insani ukfur mu ne falammaa kafara mu ne xaala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin xam seytaane su ñëwee ci nit danaan ko weddil su nit ki weddee mu ne ah, man nag dañ naa ci yow ndax man ku ragal yàlla laa moom mi nga xam ne mooy borom bindee fi noonu ko yàlla jàngalee ci alxuraan de mais fii li may wax ay nit lañ leen jàngal moo tax ay nit lañu ragal ragaluñ yàlla fii nit mën naa wax lu ne ci yàlla dara du ko ci fekk soo waxee ci nit nit ñi di tëbaka dal da day wax ne ay nit lañ leen jàngal moo tax ay nit lañu gëm gëmuñ yàlla yàlla du leen yëngal nit ñee leen yëngal te mu nekk ay mbir yoo xam ne ku xool da nga koy gis nekk lu nit di làmbatu jamono bu ne nga dégg ko jamono bu ne nga gis ko te loolu moo fi nekk te loolu moo fi nekk soo demee ci yàlla Moussa lan la waxoon ay nitam wa qaala muusa yaa xawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin muusa dafa waxoon ay nitam na leen ey yéen samaw nit su fekkee ne gëm ngeen yàlla kon wakkiyu leen ci moom su fekkee ne ay woy jébbalu ngeen fekkee ne ay muslim ngeen loolu mu ci suuratu yunus ay 84 muy suurat 10 ay 84 nga xam ne loolu Moussa waxoon aw nitam su fekkee ne gëm ngeen yàlla kon wakkiyu leen ci moom su fekkee ne ay muslim ngeen su fekkee ne ay su fekkee ne ñu jébbalu ngeen fii nag dangay ñëw fii ñoom ñu ne gëm nañ yàlla banaan naan sax ay muslim lañ donte sax euh, comme li may wax ñoom ràññeewuñ islam ak ahlu sunna wal jamaa seenum njàngale te yooyu yëpp di ay xaaj te yàlla wax ne ñu xaaj seen diina ay bokkaalekat lañ mooy comme kuréel yi fi nekk yàlla nee na ñi nekk ci kuréel yooyu ay bokkaalekat lañ mu nekk lu leer ku dem ci alxuraan da nga ko fekk ci ku dem surat 30 verset 31 32 yow yaa ko fay fekkal sa bopp te bokkaalekat yooyu yàlla ci boppam maa digalu leen sax julli ndax dafa wax na warut ci ñoom ñuy dundal ay jàkkaam ku dem ci surat 9 aya 17 da nga ko fa fekk nga xam ne ñoom warul leen warut ci ñoom sax ñuy lu jàkka yi bari bari maanaam warul warul ab bokkaalekat warul ci moom muy julli يعلم يعني ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون بوكال كات وروت تي موم صاح مي جولي وروت تي موم سامي دوندال اي جاكا يالا كو وروت تي ياو مي غاي دوندال جاكا يالا ما وروت تي ياو غاي جولي راواتينا صاح لا ني جولي موم بوكو تاك صاح لي يالا ديغلي بوكال كات يالا باتاي ور صاح تي موم مي ادي ماكا صاح واخون ناكو دوبي 2017 سو نين ديمي سين خالص نين ياخ képp ku gëm xeetu gëm-gëm yi affaire u njabar yi nangam te gis ngeen at mu jot nañuy def ci affaire u màkka ak nangam nangam xeet yooyu jarul sax ngeen di dem da ngeen di yàq seen xaalis yàlla dafa wax sax bu leen ko jege yàlla moo wax ci surat 9 aaya 28 nii suratu tawba ba tey aaya 28 yaa ayuha alladina amanu innama almushrikuuna najasun fala yaqrabu almasjid alxaram baada aamihim hada ca jamono yonentu ba la ko waxoon ne eh, yéen ñi gëm bokkaalekat yi sobe lañu bu ñu jegee su jootukaay bu ñu woor wormaal wala su jootukaay bi nga xam ne dafa am la ñu fay tere ginnaaw at mii surat neuf ay nga xam ne warut ci ñoom julli warut ci ñoom ñuy aj màkk ndax yàlla dafa araamal ci ñoom àjjana ku yàlla araamal ci yow àjjana looy julli looy woor looy aj màkk amul la njëriñ bi yàlla ñi gëm lay wax ñi gëm nga xam ne dañ koo gëm te bokkaale wuñ koog dara ñoom la sant jëf yooya waaye ñu koy bokkaale kay santu leen loola te soo ñëwoon fii ne nit ñi gëmu leen yàlla mu jaral leen xuloo xeex te moo ne soo demee ci alxuraan la yàlla jàngale ci gëm ngëm doxeewuñ ko la yàlla di wax ci bokkaalekat yi loolu mooy seen yitte te ci loolu la ñuy dox nga xam ne kon ay bokkaalekat lañ bu wér te koo jox da ngay bokkaale mu koy wute weddi te moo kat ci loolu la ñuy dox. di gëm yo xamne lo xamne yalla rek ko jagoo ñu gëm ci ay nit yoy yep nek ay jafe-jafe yo xamne fi la nek nit ñi gisal ko seen bop xamal ko seen bop te téwul dañuy bëgg légui di di taxaw di woto wo ak ngëm di woto wo nangam su dara xewé ci réew mi nga gis kenn ku ci ne di tebaka dal moy comme li bay wax so gisé li xew fi jamono bi ci affaireu lolu am king fat palace ñu naan ay carnaval xawma lan de rio lañ indi fi dakar gars yi di ci wax lu ne ma damay xam maa bokkaale moo gën a garaaw yi ngeen di wax xanaa xamul xamoo nit ñi dañoo am problème gis nga bokkaale bokkaale moo gën a bon njaalo lu leer laa wax ne bokkaale soo demee ci alxuraan bokkaale moo gën a bon njaalo gis nga ngóor jigéen gi ñuy wax nii ak ngóor jigéen mooy lu ñuy wax homosexualité bokkaalee ko gën a bon njaalo bokkaalee ko gën a bon ak ngóor jigéen bokkaalee ko gën a bon te soo xoolee njaalo ci réew mi wax dëgg yàlla fii moom njaalo soo xoolee lu banal la quoi moom daanaka du fi dara waaye ngóor jigéen da gis su taxawee kenn ku ci ne naan dañ leen a war a def lii dañ leen a war a def laa te ñu ngi sax ci loo xam ne moo gën a bon ak ngóor jigéen. ci njàngaleem yàlla la wax de alquran ci njàngaleem yàlla alquran ngóor jigéen bokkaale ko gën a bon njaalo bokkaale ko gën bon nit ñi nag dañuy génn di wax waaw li amoon ki ñu wax naan li amoon King Far Palace nangam nangam eh, li amoon King Far Palace loolu loolu yéen seen yoon newu ca même su ngeen xamoon sax islam di ngeen xam ne seen yoon newu ca ndax islam li jëntiwul loolu islam li ci penc mi day di jënti nit soo duggee sa biir néeg di def la ngay def yoonu islam newu ca du ko lijjanti yàlla yow nit ki lay waxal yow gëm nga yàlla doxeel nii doxeel nii doxeel nii bul def lii bul def lii bul def lii soo gëmee yàlla li la yàlla digal ngay def lim la tere nga sori ko soo gëmul yàlla lala yàlla tere yow mën nga koo def la yàlla tere nag yow soo koy def ndax yow sa ngëm ci yàlla moo wérul loolu lu ca nit di lijjanti njaaloo nga xam ne xam nañ ne du lu baax bokkaale ko gën a bon nag ndax bokkaale yàlla nee na du jéggal ku koy def te yàlla nee na kii bokkaale dafa xaraamal ci yow àjjana te njaaloo nit mën na koo def tuub yàlla wax na ko ci alxuraan mu doon lu leer mu jéggal la bokkaale moo gën a bon xeetu bàkkaar yi yéen dégg bokkaalee ci gën a bon lépp bokkaalee ci gën a bon te bokkaale sport national la fi njaalo rek ay nit su nekkoon seen néeg di njaalo kenn yëgul kenn gisul charia du leen caw xanaa ñoom ñu demal seen bopp dénoncer seen bopp waaye suñ ci saxoon ay at di ko def di suturaal seen bopp ci dugg ci seenum néeg di ko def yoonu islaam new ci dukkul luñ ñutu islaam du ñëw di leen espionner pour wax ne ñii na dañuy njaaloo déedéet du sant kenn mu espionner leen nga xam ne nit soo toogoon di tuddoo diine nga gis ay góor góor ak jigéen bi ànd di dugg ci néeg ngay njortu naan dañuy def lii ak dañuy def lii yow njortu gi yow la ndax yow mi nga xam ne dangaa gëm maanaam njortu gu bari gi sax yàlla dala ko moytandikuloo xam maanaam yow mi gëm njortu gu bari gi sax yàlla dala ko moytandikuloo mooy li mu wax ne yaa ayyuha alladina amanu ijtanibu kasiran min azanni e yéen ñi gëm moytandiku leen maanaam lu bari ci njort yi moytandiku leen lu bari ci njort yi ndax lan inna baada zanni ismun ndax yenn njort yi sax bàkkaar la damay wax ne islaam maanaam day suturaal nit suturaal goo xam ne bokkut ak ahlu sunna wal jamaa islaam laay wax nag si ahlu sunna wal jamaa ñoom it dinañu wax loolu mais ci seen doxalin leen lu ci ne ñu bëgg ko contrôler loolu du islam islam yàlla moom li muy jàngale day wax li muy wax digle day wax li muy wax digle li muy digle tere li muy tere du la force ci dara ndax yàlla li mu wax mooy laa ikraha fi diin diine amul force dëgg ci yàlla lay bàyyi ko ku mu soob mu gëm ku mu soob mu weddi yàlla moom foofu la nekk ça veut dire que nit ki su waree gëm yàlla yàlla ne lii mooy ak ngëm moom doxewul noona la muy doxee moom la diggante moom ak boroomam yooni nit ñi newuñ ci nga su doon njaalo par exemple ay at di dugg ci néegam di njaalo loolu islam du ko lijjanti islam du ñëw di ko luññatu pour génnee ko pour mën koo dóor téeméeri yar du ko def benn nit su doon njort ne ñii dañuy njaalo ba mu dem gëstu ko ba gis ko gis na ñii dañuy njaalo su génnee ne waaw ñii dañ doon njaalo moom moom kenn kepp moom islaam dafa wax ne moom moomu ñëw naan dañ doon njaalo nañ ko dóor quatre-vingts yar moom moomu di génn di wax naan ñooñ dañ doon njaalo ci sutura gi leen yàlla suturaal ndax yàlla xam na lépp ba ñoom ñu ngi njaalo dugg seenub néeg di ko fa defee benn nit sax su ñëwee gis ko génn ci penc mi wax ko kooku dañ ko war a caw moom quatre-vingts yar juróom ñetti fukki yar ñaari nit suñ ko luññutu woon ba gis ko ñëw génn di ko wax ñaari nit ñooñu dañ leen a war a caw juróom fukki yar kenn ku ci ne quatre-vingts yar ñetti nit suñ ko luññutu woon ba gis ko génn di ko wax ñoom ñetti ñooñu ñëpp dañ leen a war a caw kenn ku ci ne juróom ñetti fukki yar ña ñuy wax ne dañ doon jaaroo kenn du leen caw ndax ñeenti seede lañ wax te damay wax ne ñeenti seede xanaa dañ koy defee ci ma loolu boo xanaa ci mbedd mi lay doon te loolu yëpp ci suturaay yàlla nag ndax yàlla mënoon naa wax ne su ngeen gisee ay nit ñi njaalo nañ leen dóor nàngam waaye njaalo gi soo koy wax dangay am ñeenti seede ba tey ngir suturaal nit ay nit nag yàlla am lum digle am lum tere dañuy wax naan ay dëkk suñu maam diw suñu maam diw suñu maam diw dëkk suñu maam diw yooyu ngeen di wax su ngeen xoolee dëkk bi ni muy doxee ak nit ñi jikko yu ñu yor su ngeen waxee ni ñii ñu gëm yàlla lañ mel gi ngeen mel ni ñoom nañu mel moo tax ngeen ne gëm na ñoom gëm nañu yàlla waaye su ngeen demoon gëstu li yàlla wax di ngeen xam ne ñu gëmuñ yàlla waaye mel ni ñoom nañu mel moo tax ngeen di gëm ne ñooñu gëm nañ yàlla waaye su ngeen gëstu woon li yàlla wax du ngeen gëm ñoo ñooñu gëm nañ yàlla yàlla kay li mu tere mu leer nit ku ci nekk yow kooku day mooy yàlla waaye nag mooy gami mooy yàlla diggante moom la ak boromam su fekkee ne loolu moom la concerné su fekkee ne loo xam ne moom ak société bi la loolu société bi moo koy réglé loolu état moo koy réglé mais imagine leen ay nit ñu dem ci barab luye fa seenub saal moo xam lañ koo luye moo xam ne mu mën a demee waaye daal dugg ci seenub saal tëj seenub saal organiser seenub soirée def fa lañ fay def benn nit filmer ko wala ay nit filmer ko génnee ko publier ko nit ñi nekk ci loolu di kaas waaw ñoom kay suturaal nañ seen bopp ba dem dugg ci saal tëj ko defee wuñ ko ci mbedd mi ñi fay dem lañ fa organiser da leen a ñor moo tax ñu dem fa tamit ñuy wax na ñaa ñun xamuñu woon wala nangam waaye ku fay dem lu la fa yóbboon du suwaare moom la fa yóbboon dem moom parce que loolu dafa xaraam waaw dafa xaraam wala lu ay caaxaan la waaw caaxaan la waaye yàlla waxul ne loolu dafa xaraam sax loolu ne li may wax man nag li may wax moom wax dëgg yàlla li may wax li may wax ci alxuraan lay tegu képp ko am loo cay wax da ngay indi alxuraan loolu yaakaar naa gars yi nekk fii ñu naan dañuy wax ci diine te ci ahlu sunna wal jamaa lañ wax am na loo xam nañ ko loolu moom léegi xam nañ ko maa ngi wax naan ay nangam dafa xaraam nangam dafa xaraam ay musique dafa xaraam ay fecc dafa xaraam nangam dafa xaraam musique xaraamul loolu def nañ ci ay waxtaan fecc xaraamul parce que diine. maanaam nit sooy wax ne dafa xaraam da ngay indi aaya bi wane na loolu dafa xaraam ndax yàlla dafa wax may wax ne mbiru xaraam dafa am benn maanaam dafa am benn règle bu ci yàlla tëral ci alquran ku dem ci surat 6 aaya 119 ci biir aaya bi dafa wax ne waxad fassala lakum maa xarama aleykum faram fàcceel na leen li mu xaraamal ci yéen kon lépp loo xam ne dafa wax ne dafa xaraam day war mu indi aaya bi ko yàlla xaraamale su ko defee nit ñi sax ñoom seen bopp na am habitude boobu lépp lu leen nit wax ne dafa xaraam na ngeen ko laaj ana aaya bi yàlla wax ne dafa xaraam ana ci ban aaya la yàlla waxee ne dafa xaraam nañ la jox aaya bi alquran léegi am na traduction yëpp ngeen dem liirali ko seen bopp bëri waane lu wax dafa xaraam amul benn delluwaay su dee nag léegi ci defin ay jigéen ñi ñëw summeeku ñëw di di def nii ma ña fa dajaloo diine taxu leen a ay nit lañ ñoo xamne ñoo am seen pas-pasu bop li intéressé leen ñu dem di def lolu ñom la intéressé seen digënté la ñom ak seen borom du diiné mo tax ñu dem lolu du daayira du ab lolu du jaaka du dara ay nit ñom ñoo am seen bëgg-bëgg bop dem di defal seen bop lolu l'islam li jëntiw ko l'islam demul di dugg ci barap yi nga xamne ne comme ci boîte de nuit wala nangam tay sax yi ñuy wax ni fi est ce que da fay lu bees yi yag na ci réew mi xana kay kii gars yi dañuy gumba ci lii tax ci lii wala des fois mbir day xew kenn ku ci na bëgg a génn di wax rek mais mbir yi du loolu su fekkee ne jëmmi diine moom diine am na yoo xam ne du mbiram su fekkee ne nag affaire société bi la waa léegi mën nañ wax ne loolu ci société bi nangam mais loolu ça n'a rien à voir ak islam ndax yow may jug di fa dem lu la fa yóbbu islam la fa yóbbu islam taxu laa jug di yow yaa fa dem ndax la fay xew ñor na la amaana da ngay yëkkate sa sax fay ngir mën faa dugg ñu organiser lañ fa organiser def ko fa yow nga toog seetaan ko ba mu jeex ñu génne nit ñi benn nit film wala ñaar ñu naan waaw dëkk bi nga xam ne nii nàngam léegi ñi fa demoon ñan nañ gëm ñafa demoon ña ngeen wax naan dëkk maam diw dëkk maam diw dëkk maam diw ña fa nekkoon ak ña ko organiser daanaka mën na saa wax ne ko mënees naa wax ne daanaka koo ca laaj ca ña fa teewoon soo leen laajee ñooy la ñun maam diw la ñu gëm wala maam diw la ñu gëm kon ñi gëm maam diw yooyu ñoom ñoo fay dem di ñi gëm maam diw yooyu sa amaana ñoo koy organiser di yéen ngeen di ñëw di évoquer maam diw yooyu ngir ñoom bëgg leen a balaa bi te soo moytuwul sax ñoo xam ne ca maam diw moomu sax la ñu sëtoo soo moytuwul ñu ngi fa mooy li may wax Sénégal xam nga Sénégal mooy mooy dëkku daal ci gàttal parce que loo xam ne nit ñi ñoo koy def te ñoom la tax ñu di ko def du diine yow nga fay indi diine am na loo xam ne man damay wax sa nguur gi ci boppam am na ci responsabilité parce que am na loo xam ne du diine diine amul forcé da lay neex nga gëm dalay neex nga weddi te loolu tamit lu ci mën a doon coobare yàlla yonent bi ci boppam yàlla da koo waxoon ne ko walaw shaa rabbuka la amana man fi l ardi kulluhum jamian afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin yonent bi ci boppam la ko yàlla waxoon ne ko su sooboon yàlla sa borom ñi nekk ci suuf ñëpp dañuy gëm su sooboon yàlla sa borom ñi nekk ci suuf ñëpp dañuy gëm wala boog yow yaa leen di ba ñu nekk ñu gëm loolu la yàlla laa ci yonent bi de wala boog yow yaa leen di ba ñu nekk ñu gëm te yàlla waxal boppam ci téere bi ne la ikraha fi din diine amul forcé diine ju amul forcé ay nit ñëw bëgg a taxaw taxawaayu policier ba pare léegi di ko tuddee diine loolu du diine yàlla li muy jàngale da koo jàngale mu nekk lu leer ku ko soob maa ku mu soob nga topp ku mu soob bul topp ku topp sa diggante ak sa borom la ku toppul sa diggante ak sa borom la am na ñoo xam ne maanaam saal yooyu suñ ko ubbi woon di maye sax duñ fa dem ndax amuñ fa soxla di ci xëy na ñoom ci li ñuy dem xëy na ñoom jàkka ja la dem wala xëy na ñoom ay daayira la ñuy dem wala nangam la ñuy dem te ñay dem ca daayira ba ak ñay dem ca fële ñoom ñëpp dañuy wax na ñoom ay kii maam diw yooyu lañu gëm di te amaana sax ñay dem ca daayira ba suñ dajee woon ak ca kañ gëm ñoom suñ dajee woon ca ñi gëm nii kay dem ca fële soirée bee ñu tëj moom la ñuy recevoir de kii duñ ko recevoir ndax yorul alal affiche ba fi ñun fii suñ diine ji alal la daa affaire xaalis la loolu loolu la daal du islam du islam loolu suñ yëfu bopp la ay mbiru maam la du islam islam du mbiru maam islam du mbiru maamu kenn. du mbiru mag du mbiru mag ñu njëkk ña du mbiru mag ñu mujj ñi islaam yàllaa ko moom yàlla mi ko moom moo koy jàngale moo ciy yoonal moo ciy daganal moo ciy xaraamal te yàlla moom moom forcé wul kenn ku mu soob nga gëm la wax alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur dëgg ci seen borom lay bàyyi ko ku mu soob nga gëm ku mu soob nga weddi kon islam kenn mënu caa nekk di forcer nit ngir mu topp yàlla mënul nekk kenn du nekk ci islam di forcer nit mu topp yàlla mënul nekk ndax kem ni ma ko waxee am na ñoo xam ne xëy na ñoom ci daayira bi lañ gëm fee soo doon maye place yi sax duñ fa dem am na ñuy dem fële ñoo xam ne daayira bii soo leen waxoon ñëw leen ma may leen cinquante mille sax duñ ci dem amuñ ca soxla du seen yitte. te moo leen ñoom ñëpp yàllaa leen bind kon dafa war nit ñi xam lan mooy diine réew mi fii rek dafa am yoo xam ne daf fay yàgg parce que ñoom diine dañ ko jàppee ay mbiru parce que dama diine amul organisation yi diine amul clergé diine nit ki la yow sa diggante ak sa borom yoonu kenn newu ca yàlla li muy wax moom da koo wax mu leer ku ci nekk yaa ngi ci ku ci nekkut nekkoo ci yàlla nag li mu wax ku ci nekk da ngay dëppoog li mu wax ku ci nekkul da ngay wan ginnaaw la mu wax waaye ñiy wax ci affaire yii te gëstu leen euh, am na ay jamono ñuy wax ay gëstu yu ñuy wax ci affaire euh, maanaam comme yaakaar naa chaque année Google da koy def mooy recherche yi nga xam ne moom la nit ñi di def. ci internet bi ay recherche yu ci gën a mag parce ci àdduna bi yëpp dañ koy def am na benn année déglu fii Sénégal ñuy wax ci affaire pornographie maanaam nombre de recherche yi nga xam ne moom la ci nit ñi di def te léegi nit ñooñu mën nañoo génn ñëw suy xewee ñuy génn maanaam du euh, suñ maa ñuy génn di indi ñëw kon da ngeen gis yooyu yëpp ay problème la yow yaa ngi laa laaxatu di def la ngay def yàlla di la suturaal yemal ca loola yàllaa ngay suturaal dundal la ngay dund yow la sa diggante ak sa borom kii yor na xaalisam ñu organiser ab soirée soirée ñor na ko mu jël xaalisam dem fay dugg soirée ñu indi animation animation bi la mu mën a animé woo ak nu mu mën a mel moom intéressé na ko moo tax mu fay xaalisam yow mi nga xam ne loolu intéressé wu sa la intéressé wu la demoo ca yow lu ci sa yoon luñ cay lijjanti ba koy indi maanaam ci devant de la scène suñ ca waxutoon génnee image ñoom kañ waroon a lijjanti mooy que génnee image yi sa soo demee ci alxuraan yàlla loolu lay bañ yàlla li muy bañ mooy koo xam ne day tasaare ñaawteef su dee loolu ñaawteef la par exemple loolu su dee ñaawteef ki ko tasaare la ñu war a blâmer nit koo xam ne yow yaa dem ci soirée ba ndax man gis naa image yow nga seetaan ba soirée bi di jeex ba jigéen ñi di génn ngay profité di leen filmer waale di leen filmer waale naan ah lii de moom xam naa ba diw jàpp la yow mi koy wax yow diw warulaa laa jàpp yow su fekkee su daa war a te ñoom sax ñooñu amuñ sa benn droit yow nga seetaan ba mu jeex ba ñooñ di yi nga bëgg leen a filmer waale noonu ba pare di ca waxaale yow moomu kay yow moomu yow yow dëgg-dëgg ki def loola so demé ci alcorane koku lolu lolu dafa nek lo xamné lu yàlla bañ na ndax yàlla dafa wax ne innal ladhina yuhibbuna an tashia al fahishatu fi alladina amanu su fekkoon sa lolu fi nek ñi gëm lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun lolu mu ngi nek ci sourate 24 ayat 19 sourate nur yàlla wax ne gaay yi nga xamné ne dañoo bëgg tassaré ñaawteef ci ñi nga xamné ne dañoo gëm yalla mu ne ñooñu am nañu mbugal mu metti ci aduna ak alakhira ndax mu ne yàlla moom na te yeen xamulen gaay yi nga xamne dañoo bëgg tasaare ñaawteef mo xam ñaawteef mu mëna doon fa lool su ngeen ko jappé ñaawteef sax yow mi nga xamne yow ya ko tasaare yow fekkee ne sa bëgg-bëgg ngay bëgg di tasaare ñaawteef yalla mu ne gaa yi nga xamne dañoo bëgg tasaare ñaawteef ci biir ñi nga xamne dañoo gëm mu ne ñooñu am nañu mbugal mu métti ci àdduna ak alaxira te yàlla moom xam na te yéen xamu leen kon dëgg-dëgg yow may tasaare loolu di ko wane ndax soo ko defutoon la fa nekk seenub secret la yoonu kenn newu ca man mi toog sama kër man sama yoon newu ci ko toog këram keneen yoonam newu ca ka nekk ci barabu liggéeyukaayam yoonam newu ca ndax am na ñoo xam ne xëy na fañ loolu fa mu amee woon ñu ngi ca buntu ba di fa liggéey. te loolu seen yoon newu ca ndax ñoom loolu taxu leen a jug ñoom liggéey moo leen tax a loolu ñamu ñor ñoo fa dem yow yaa ngi ca biir taxaw seetaan ko ba mu jeex nga filmer ko génnee ko nit ñi léegi di am lu ñu ci wax lu ci seen yoon te loolu yoonu islam newu ca nit ñi faaw ñu xam ne islaam du diine jooju islam ñëwul di maanaam di ñu ñutu nit ñi di leen lijjanti pour am lu mel ni teg loolu du lislaam su dee nag léegi ay nit dañoo wax ne ñoom société bi lañ fi nekkal d'accord mais loolu du lislaam te société bi sax wax dëgg yàlla ñooñu dañoo dem ci biir saal dugg tëju mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci man ci média yi di wax lu leen neex ak ñi nekk fii di tuddoo diine di bokkaale yàlla te loolu gën a bon mu doon lu leer de la xewoon foofu bokkaalee ko gën a bon nag xam leen ko de ci saal boobu waa ji filmer ko nit ñi di wax noonu bokkaalee ko gën a bon maanaam bokkaale ci xeetu mbon ci diine daa amul lum ci yemal amul amul lenn lu bokkaale ma te yu ci bari yii sax bokkaale maam nit ki bokkaale gi muy bokkaale sax moo tax muy mën a yëngu ci yooyu kon nit ñi nañu yeewu affaire maa mën yi nit ñi nañ ci yeewu yàlla da leen a jox garanti bu leer nañ garanti ki mooy njub yàlla dafa wax ci alxuraan loo xam ne dañuy faral di ko dinañuy faral di ko bàyyi loo xel nit ñi yàlla dafa wax ci sootu maida ne yaa ayuha alladina amanu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla ida htadaytum ee yéen ñi gëm dénk nañ leen seen bopp ku du leen mën a lor lu feek yéen a ngi sax ci njub kon li mën a xew ki gëm yàlla fexeel ba sax ci njub suba boobaa doo ragal ku réer ci yow dara ay maamën yii mënuñ ci seen boppu dara bay mën ci kenn dara ñeneen ñu dul maa mën yi sax munuñ ci maanaam munuñ ci seen bopp dara bay mën ci kenn dara te bokkaale moo gën a bon ngóor jigéen bi ngeen di wax bokkaale ko gën a bon ña demoon ca saal boobu ñu naan dañuy def carnaval de Rio bokkaale ko gën a bon bokkaale mooy problème mu Sénégal ndax dafa am ay gëm-gëm yoo xam ne day abrutir nit ñi seeni xel lay yàq te fi àdduna toll nga xam ne fii fi àdduna toll di vingt deux kii kii fi àdduna toll maa mi vingt et unième siècle ñun ñu nekk daanaka fa Occident nekkoon au quinzième siècle ñun ñu nekk foofu foofu dañ faa war a jukk te li ñu fa mën a jëlee mooy len suñu gis gi suñu suñu dégg gi ak suñu xel yi muy ñetti jumtuwaay yooyu mi ñetti outils yooyu yàlla jox ñu moo tax ñu mën cee génn su fekkee ne dañoo wax ne dañoo bëgg gëm yàlla gëm gu sell nañ jëm ci téeréem di ko liiral suñ bopp kenn ku ci ne ci langue ba nga dégg traduction yi yaatu na bari na am na ay écart de traduction waaye bariwu ca lool di nga xamal sa bopp sa borom lu mu la wax ak lu la waxul di nga xam soo ko bëggee topp toppin gu sell naka nga koy toppee su boobaa nag nga doyloo yàlla sa borom wakkilu ca moom gëm ne ku dut moom amul kàttan loolu su saxee ci yow bul ragal lu yàlla bind bu ko ragal lu yàlla bind bu ko ragal yàlla képp a fi ne yàlla képp fa ne képp koo xam ne jàpp na ne mën na dara na ko wane ci réew mi jafe-jafe yi ne waaye dina dikk ay àjjanaak ay marché bii suba nii lay demee su ñëwee jaar feneen te ñoom sa seen bos li tax miy feeñ mooy dañ lay wax lu jege. ña ñuy wax ne ñoom lañ yaakaar àllaaxira nañ nañ leen diglu jege ngeen xool ci vaar ngeen ni dëkk nañ leen diglu jege ci vaar ngeen ni dëkk ndax gis ngeen ko fi ay at ñi fi doon wax ay président naan la di de def lu tudd di nga faluwaat ak di nga nangam ak di nga nangam fan lay mujj élection yi weesu ñaata nit ngeen fi gis ñu leen tuddee ay sëriñ ñu wax fi ay wax résultat yi ñëw weddi leen ñaata nit. du da ngeen mujj di leen baar lañ leen dig ci nañ leen dig lu jege ngeen xool baar yi su boobaa naka lay demee yàlla li mu lu leer la lu mu faram fàccale lu ku ne mën a xamal boppam la su ci defee yitteem nekkul lu compliqué nekkul lu jafe benn trois mois képp nit su ko bàyyee xel njàngalem yàlla yeewu ca benn trois mois képp nit su ko bàyyee xel njàngalem yàlla yeewu ca te su ca yeewoo jeex na kenn mënatulaa ndax kenn mënatulaa gëmloo yenn gëm-gëm te soo ko maanaam soo ca yeewoo yow dangay ngay développé wu personnellement mentalement et spirituellement da nga ciy développé wu su boobaa niñ koy waxee waay mii maanaam six siècles ya nga xam ne moom la la Occident rawee yow sa bopp da nga koy pallier da ngay gis ne maanaam yow sa mentalité ak sa gis-gis ak sa déggin dangay mën a déggook ñoom ci wax ak ci xalaat ak ci gis-gis waaye fii soo fi nekkee nii nit ñi gëm-gëm yi ñu am seen xeetu wax ak seeni gis-gis nga xam ne daanaka lu sérieux bokkul ci seen dund dangay gis ne dëkk yi daanaka jafe-jafe képp la te ñi fi nekk ñooy dund jafe-jafe yi te ñoom ñooy nourrir jafe-jafe yi nga xam ne yow dangay nekk ci jafe-jafe te jafe-jafe boobu nga nekk yow yow yaa koy dundal maanaam yow yaa koy xamb yow yaay xamb jafe-jafe bi yow yow yaay nekk ci jafe-jafe te yow yaay xamb jafe-jafe bi waaw kon nag wax dëgg yàlla lii moom mbir la moo xam ne mën nañ ci yaatal lool liñ ci mën a waxit bari na li ci nit ñi mën a jàngat bari na waaye dafa war sénégalais yi ñoom seen bopp ñu xam lan mooy diine ak lu dul diine xam ne diine forcé wul kenn lenn ku mu soob nga gëm ku mu soob nga weddi loolu la yàlla wax ku weddi nag waxal ne da ngaa weddi ba mu leer ku gëm wane ne dafa gëm ba mu leer kenn ku ci ne ñu xam ne fii la ne waaye lu ko mooy mooy waral affaire comme li ñuy wax mbiru naafeq yaatu fi lu xew nit ñi génn wax ci te ña koy wax ñoom ñoo koy jëf te loolu nekk ay problème yu mat sëkk macha allah ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp ak te di leen baalu ax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum